dawal sans permis waaw ah sama doom ji nag moom sama doom ji itam tàgguwul bàyyam de kii li muy def nii lu moom hmm. ah, ah tàggu la na lu defoo ah sama doom ji juum na nag mm-hmm, mm-hmm. bokkut ak Aziz juumoon Aziz a gën a juumoon ñëpp <laughs> ndeke yoon làmb du fa amee <laughs> El Hadj mag la mais xoolal nandite la gën leen a nekk bandi toog fi mu toog di seetaan télé bi. tey ay këyitam. concert bu concert bu rëy. Youssou ne ko. Youssou naan ko Aziz juumoo affaire bi TFM la sa télé la. miroir baa ngi seetu bi affaire bi fii la gars yi naan as concert boo xam ne. El Hadj Ndiaye ndeke fa mu toog wala mu jàpp 2S ndeke TFM la jàpp. këram moom madame Ndiaye di leen seetaan ak ñoom Abdoul bàyyi ba suur làmb ji jot TFM départ ak seen i camion ñee tam départ ak seen camion <laughs> xiin xiin ñëw ba buntu esaat El Hadj Ndiaye teg fa lu toll policier yi mujj ma ay malaaka kenn xamul fu policier yi ëpp nit ñi plus policier yi nga xam ne moom la Aziz moom la Aziz wutoon <laughs> te ñoom ci ndigal la ñu yooyu <laughs> maanaam policier yi Aziz indiwoon pour organiser làmb ji ak policiers yi nga xam ne moom la El Hadj indi jaaree ko ci kayitu justice dem commissariat ñoo fa daje te police moo la woon ñu xeex seen biir. mukk dañoo yegg rek ñu woon leen kayit ne leen juge bi nii la wax yeneen policiers tafu ci El Hadj maanaam policier Aziz yi tafu ci policier <laughs> lii kenn mësu koo gis. Aziz gën a jombi. ñu doon wax TFM ayca. naka <laughs> ne Aziz juum <laughs> xale bi naan Aziz. keroog laa waaru ci yàlla <laughs> El Hadj Ndiaye yor mel ni xale jiital ñaari doom yi Abdoul ne ca kanam di xiin xiin yi di waaxu ma ne ko tey rek lay neex. Aziz Toumo l'info yéen kaay ñëw ñu ci visite en prélude au Magal Touba Abdou Bassirou Diomaye Faye qui s'engage à nouveau joxewaat na de la mu yéene ca Touba waxaat na ko. lii def ci français ma la koy sottil ci wolof. maanaam Touba Abdou. yëkkati na fii fii fii li sëñ Bass Abdou Khadre wax ci Diomaye moo ma neex. anam lii leen ma ko ma koy sotti. Serigne Mountakha. waaw vous vous une énorme estime parce que vous êtes un homme pieux. a ah. un adepte de la religion. sëñ Bass Abdou Khadre moo ko wax njiitu réew mi. waaw mu ne ko ne ko jëmu ji tedd ji Serigne Touba sëñ Mountakha maanaam dalaa sotti bëgg la lool lool lool lool. ndax cofeelam ci yow. la ko indi leen dong la. Mhm. maanaam ngëm-ngëm gi. Mm-hmm. diine ji. Mm-hmm. diine bëggug islam gi. waaw mm-hmm. ah, te moom ku lalu ci siraatal mustaqim mu ànd ak yow. lii la ko sañ Bass wax yeggali. depuis votre première rencontre. waaw le xalif a développé une affection particulière. dégg nga loolu pour vous. waaw waaw un sentiment. waaw boo fi nekk en votre la lii la ko sañ Bass Abdou Khadre wax. sa ñëw gu njëkk ga. ba nga ñëw xam na léegi léegi nit. ñu koy solal benn yére rek di ko solal benn yére rek. Mm-hmm. waaw waaw waaye koo toogalul. Mm-hmm. tukki ak moom boo ko leen fanaan mënoo koo xam. Mm-hmm. waaye nee ko euh, euh, sëñ Bas. mu ne ko na am mu ne ko sëñ bii dama di tëj sëñ Tuubaa sëñ ak keroog ba nga ñëwee toog ak moom ba léegi nii la la jàpp. sopp la. ndax sag yar. waaye même bi nga ñibbee. boo fi newul sax da da da da da koy wax. Mhm. day seede mbaax mbaax yi sa ginnaaw. lii la ko sëñ Bass Abdou Khadre wax yëgalil. nee na ko nous avons vu. ay cœur. que vous avez déployé tous vos services. waaw et ministères. waaw et que vous avez tout fait. waaw pour corriger les impairs. dégg nga loolu. waaw loolu gis nañ ko. Mhm. képp koo xamante ni daa bokk ci nguur di sa service di say ministre koo xam ne yaa ko yilif. Mhm. màggalu sëñ Bamba ji. waaw Mm-hmm. ngir yenn yi nga xam ne dañoo manqué yenn yu defewul yi mm-hmm. ñu indi cëb jubbanti mm-hmm. mooy jub jubal jubbanti gi cœur des cœurs <laughs> ci mën na sérion waaw vous trahir wala du loolu demal rigueur de même vous tenir ah leerul yeggale bët baaxul de parfois bind bi nii yow du sew lii du sew léegi fa ne mu foofu vous tenir la nee la vous tenir la maa ngi toll ci à trois kilomètres. nous ne serions vous tenir rigueur de quelque soit. xale yu ndaw seen bët. même si vous n'aviez rien temps a été trop court. waaw pour vous. et nous comprenons cela. dégg nga sëñ Bass Abdou Khadre ne ko. Mhm. maanaam boo deful woon sax. ñu sopp la bu dul dara. waaw dafay xëjul. ndeysaan. la sëñ bi waxoon taalibe maanaam dab tubaab yi dafay xëjul. maanaam mu ne ko temps bi daa gàtt. ndeysaan daa gàtt lool nga dikkee léegi daa daa gàtt lool moo tax loo ca deful woon sax duñ la ko jàppee. Mm-hmm. dañ la koy muñal. ndax ndax dafay xajul. dafay xajul waaw. ñu dem. Mm-hmm. bas ne. bas ne mon premier projet pour les cinq ans à venir. du bas Abdou de. Mm-hmm. waaw bas Faye président bas Faye président. mon premier projet. waaw pour les cinq ans à sera de régler wow. les problèmes liés à l'approvisionnement en eau potable wow. et de la ville sainte de Touba wow. de permettre aux populations de Touba de vivre de vivre de vivre xaw ma lan maa et paisiblement sugu yow moom sa lëgër yi lu de sugu te parfois nag boo boo kii fee. lii nii yow ma la yow sugg. man billaahi xool ba sa bëti fulu. damay lii moo fulu. da nga koy yër bu baax. man damay xaw a collé mooy nii rek de. xool ko bu baax. utiliser bëti nga xool kaay xool. non xool. <coughs> nii rek mooy <laughs> ah exactement ah, mu ñu point nii mu yàlla. nee na. son excellence daal nee mhm. ba muy tontu. waaw ba muy tontu daal nee na moom yéeneem yëpp moom ci juróomi at yii. Hmm. ci juróomi at yii. Mhm. mooy ndox mu sell mii ñuy naan ca Touba ak wàllu assainage assainissement. Mhm. mu indi ca daal maanaam am saafara. ngir. askan wi dëkk ca bërëb bu tedd boobee di ville sainte di Touba. Mhm. maanaam mun na dund daal ak dund koo xam ne gu ñool lay ne. dégg nga mhm. lépp baax waaw lépp baax dund ko ànd ak tawféex. Mhm. waaw lii daal la daal di tontu jëmm ju tedd ji Serigne Mountakha. macha allah waaw kay Touba ado benn bu baaxee dafa yaru dafa yaru waaw gis nga leneen. Diomaye kilifa la demal. ñu dem. nga naan verre yaa ngi doon takk verre ba pare di liir di càng <laughs> l'observateur yéene kaay ñëw ñun ci eau source des mots voilà mm-hmm. ndox mi moo jur ay mitit m a u x moo bokkul ak m o t wallaay un mal des merci su ma sëñ sa Ahmed Ahmed lu bi dafa des un sale des sots un sale des sots <laughs> un cheval des Sobo. un xar ah, de. xoo ñu dem. un taal des doo. un fay. des faux. mukk un sàll. ay jàmbur le président Diomaye Faye est l'engagement pris devant de régler le problème de l'eau les autoroutes de l'eau le projet de la solution soo se wax na ko sànq. autoroute de l'eau yi ay ramification ñoom seen ay yoon yoo xam ne daal. yoonu ndox lay doon nee nañ daal loolu moom mooy saafara gi Touba le calvaire des sinistrés des inondations ak quatre jours yu màggal ñi nga xam ne ndox bi daal wax dëgg yàlla nangu na seen kër yi ñu ngi ci njàkkare bu métti te màggal bi desul lu dul ñeenti fan waaw ñett instant bi ñett démb ñeent la woon affaire ONAS l'exigence de transparence et les souhaits de la société civile société civile wax nañ de nañ ba mbir mi leer ak ñoom la ñu namm ci mbir mi mooy na leer ndax jomaay buggul lu lëndëm accusation de Cheikh Dieng des injonctions du président et du premier ministre à Cheikh Tidiane Dieng mm-hmm. la nga xam ne moom lañ namm ci moom ak lañ ko digal Cheikh Tidiane Dieng nag dana wax tey les services du ministère de l'assainissement montent au front aujourd'hui danañ tontu. d'accord soose est-ce que ministre bi ci boppam mooy wax. marché d'entretien des réseau d'eau usée et pluviale de Dakar l'histoire fii am na mbir de. marché d'entier des réseaux d'eau usée et pluviale de Dakar l'histoire d'un non contentieux. la ñaari cher. rigol yi rigol yi rigol yi nit ñi ci seen bopp ñoo koy fàtt yow dangay di génne di génne di génne tamit ña ñuy jox affaire yi nañ ko gérer. anecdotes surréalistes et témoignages renversants de taximan un jeune homme qui revenait d'une boîte de nuit est décédé dans mon taxi. Euh. une dame m'a proposé cinquante mille francs pour avoir des rapports avec moi. ci fan ci biir taxi. kooku ah xanaa ci biir taxi. fukki junni. <laughs> loolu loolu day loolu day loolu day daan daan ràññ daan ràññ non loolu nag akirul zaman xam nga li ñu waxoon ne addunaa ngi tukki lii nag akirul zaman ah daan ràññ fukki junni xam nga ñu naan góor day dem ba taxaw eh, jigéen taxaw kii góor yéeg ci garab ñu gën a xam nga garab moo doon misaal waaw waaw mais lii rek loolu la ndeysaan mais c'est vrai que taximaan yi nag gis lu ne eh, ñoom comme ñoom dañuy fanaanee daw ndeysaan loolu de mbir la moo ko moo ko. moo pour mu kii ak moom. ci yàlla. point acte. tonton Père. kii lan la bind nii tey. Père Ndiaye moo bind. sa gars yi gaañ la ministre de Macky subitement avon ba tey ñu ngi ne teg ministre Macky Sall lii. round d'observation une ligne politique indépendante de leur volonté. <laughs> yow kii a ngi ne. tonton Moussa am na koo fi wax sànq turam de moo nekk. nañ ko wëri. nañ ko wëri tonton Moussa Bokar Thiam. nañ ko wëri. Mm-hmm. tonton Moussa. ah Souleymane Ndiaye mais kay dem na ak yëfam. Karim Fofana. ñee kay ñëw na ci biir ba léegi. Abdou Karim Moussa Bokar Thiam. Mm-hmm. Thérèse Faye. Pape Malick Ndour. Souleymane Ndiaye. adopte un silence intrigant. kële bokkatu ci. kii DG la. bokk ci moom dem na. moom dem na. bu leen moo ma jaaxal ak jamono ji est-ce que jamonoy wax la certains ministres et DG seraient en proie à des harcèlements et pressions inédits ah gars yi ñu ngi leen di topp de waaw de l'émouvante supplique de Thérèse Faye président. koo ñuy bàyyee. <laughs> président boo demee koo ñuy bàyyee. waaw lii de la doon laaj lii de la doon la doon wax dëgg yàlla la doon ñaan président. ah bàyyi na ko boo demee koo ñu bàyyi au mutisme complet. bàyyi na leen ak Diomaye. maître Moussa Bocar Thiam célèbre pour ses treize coupures de l' internet et ses signal de Walf moom mi nga xam ne ca lañ ko xamee daal mooy couper internet ba mu toll ci. couper signal ak internet. ah est que moom delluwul ci baro bi di plaidé avocat am na fukk ak ñetti ak rot ci licence Walf bi nangu ko moom ci boppam jamono ji amul